mu jugee amaan na moo bett ñu bari. waaw moom Ousmane Sonko yëpp seen candidature heure bi moom. bu Barthélemy daal la yàlla xam doy na non ñoom ñaar a bokk kaa mënuma wax kii bàyyi kii ñoom ñaar yëpp seen kaa problème justice la. conseil constitutionnel mu ngi koy lijjanti mais recours bi jàpp ma ne ñooñu ñoo ko dugal parce que bu buñ digloo leaderu coalition VAR bokk na ci li ñu wax ni passif ñoo nekk ci ginnaaw. Mm. te man gëm naa ko. ndax euh, waa bi avant muy dugal recours bi parce que dañoo génn naan ñun duñu recours kenn ndax ñun ragaluñu kenn di ko wax benn ñaar ba ñetti nit. Mhm. loo defut moom soxul soxlawul di wax. te ñun nag ci réew mi dañ dëkk yaakaar naa am na luñ xam ak néew soo amee loo def rek day feeñ ci yow dañ naan un crime n'est jamais parfait. Mhm. teguñ ci ay minutes ñu ne xaw ma kan kooku nga xam ne amul ñaari nit ñu ne dugal na recours. te d'après li leaderu coalition VAR bi wax bokk na ci coalition yu parti yu ndaw ndawaan yooyu nga gis yëpp Ousmane Sonko nekk seen ginnaaw. Hmm. ngem bu leen pour ñu ñëw ci làmb gi sa mbaxloo kon du neexee wet di daal. wax ji te gëm naa ko nag. Hmm. parce que ñoom buñ ci waxutoon téye ci seen gémmiñ noppi ci avant muy am bu boobaa. dinañ xam ne seen yoon néew ci yow recouro recourané woo man bi ma déggee ñoom ayib dafe di ko wax ñoom El Mali di ko wax dem ci télé yi seen chroniqueur yi ñëpp di ko wax mm-hmm. naan ñun Pastef du recours kenn ci laa ne ah recours lañ bañ ko waxee rek laa ne recours donc yow da nga bokk dañoo ñemewul Bart ñemewuñ Bart ak Macky Sall moom jamono bii non non ñemewuñ leen parce que ñaari liggéey kat la mm. Bart day liggéey du wax Macky Sall day liggéey du wax mm-hmm. pare Macky Sall liggéey réew mi am fu mu ko teg ñu ñëw jël réew mi mu gën a yées mu nekk menace yi ñoom moo tax ñaar ñi dañoo amul lu ñu recours Macky Sall waaye kon dinañ làqatu ci benn yambar mu recours Macky Sall. Mm-hmm. Eh, eh, ñoom la wala du ñoom mais est ce que yaakaar nga ne tey jii recours boobu moom noonu bu jàllee euh, kii di Limi Dias dina dina non fooguma sax bu Barth nag moom dama naan dama koo yamaleeg Sonko rek mais pratiquement yamuñu. Mm. parce que Limi Dias dañ koo daan ci délit. Mm. te biñ koy bi bi délit bi am. boobu modifié guñu code code électoral bi mm-hmm. après lañ modifié euh, code électoral bi loi bi day rétroactif ci moom wala du rétroactif loolu dama koy bàyyee conseil constitutionnel waaye dañ ne daal loi mm-hmm. bu diisee wala mu sévère wala mu metti mm-hmm. du rétroactif bu dee loi bu nooy la nag boo xam ne amul benn incident ci kii bi day rétroactif te nag loi bi nag buñ ko waxee bu rétroactivé ci Barthélémy Dias day nag bu metti kon mën nañ jàpp ne du rétroactif ndax tay bu nit rayon nit exemple bu nit rayon nit tay ñu voter pon de mort suba mom engagé wu ko mm-hmm. ka ray nit gannaaw suba la engagé hmm lool affaire nak lool la mom bi muy maanaam bi muy bi bi affaire yi am bañ koy japp ba problème yi am bam teud 6 mois ba genn hmm teud na fi 6 mois ba genn ba nek fi député hmm comprendre nga hmm té modifier guñ code électoral bi hmm Hmm. kon man jappuma ni loi électorale bi dina dal ci kawam. Hmm. jàpp ko. parce que nak ba fee yi am parce que Karim wad sax biñ koy condamner ah, pour période boobu ak Khalifa Sall ci liñ modifier code électoral bi mo len téré bok hmm. suñ ko modifier tuwoon dañ don bok mom, dafa bu Ousmane Sonko nak moom ñom ci amnistie bi rek lañ laqatu mom fi ni kep képp amutuñ benn argument. amnistie bi dal lañ dem wëru té waxon nañ bëgguñu. boobu tamit ñi nga xaar conseil constitutionnel. Mhm. waaw Barth dafa ànd dafa àndoon ak nomba tànk ba ba ñuy tas euh, assemblée mi ngi woon ak nomba tànkam conseil constitutionnel euh, euh, teggiwul immunité parlementaire am maanaam dafa continuer ak moom tey jii bu fekkee conseil constitutionnel dafa ëlbatikuwaat invalider li nga xamante ni nii moo di candidature am est-ce que du tamit tax suuf tuuti. non ma jàpp ma ma daal sama xel jox jàpp ma ni dinañ invalider candidature am jàpp ma ko daal. fi nga teg sa loxo bi wóor na de Abdou. non dama koo jàppul xam nga néew ma loolu mooy am mais sama xel. moo jàppul loolu parce que buñ sukkandikoo ci code électoral bi. Mm-hmm. buñ sukkandikoo ci waaw ci Karim. Mm-hmm. mais bañ koy def fekk na Bart lii ko dal dal na ko ba pare. Mm-hmm. léegi ñoom seen coalition kon affaire yi mënul wëlbatiku dem ci kawam parce que moom bi affaire yi di am ba fekk na modifié guñ code électoral bi problème amul woon. Barth condamné wuñ ko ci crime ci délit lañ ko condamné dafa yor arme bu amul kayit. Mhm. loolu lañ ko daanee. ñu bari nag dañoo foog ne. Mhm. Fatou Ndiaga Diouf lañ ko daanee daane wuñ ko ci yooyu. dañ ko toppee délit la du crime. délit lañ ko toppee. waaw délit ko toppee du crime. d'accord léegi ñoom seen coalition bi bu ñu génnewee comme par exemple euh, ñu ñu invalidé woon euh, candidature Barth seen coalition bi kan nga yaakaar ni mën nañ ko jiital. pour def élection yi <laughs> mën nañu yéegal ki ci topp rek loolu du problème affaire yi xam affaire yi lan la na profil yi baax rek tey bu ñu génne woon Barth mu jiital la yow sax ñi ko bëgg dinañ la voteel ñi la bëgg dinañ la voteel ñi gëm coalition bi dinañ la voteel loolu ça n'a rien ak d'accord ak yeneen yi ci des. na dellusiwaat ci yow léegi léegi Anna eh, eh, eh, même question bi ma posé Abdou Nguer rek laa lay retourné yow aussi recours bi nga xamante ne déposé nañ ko contre Barthélémy Diaz. Mm-hmm. dafa nar a fatal ci moom wala yaakaar nga yaakaar nga ni am na chance pour dem ci élection yi.

dem def wala sax par rapport ak ñeneen ñoo xamante ne nii boole nañu leen ci course bi ñoom ñu jàpp ni waruñu mën a bokk ci bile course ñu euh, euh, saisir le le le conseil constitutionnel pour que mu revoir seen ay ay dossier loolu la ñu gis euh, te c'est pas la première fois gis nañ ko ci élection yi passé ak le cas de Karim Wade ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne nii moom moo ci xew bi itam gis nañ ko ñu dugal recours pour Ousmane Sonko waa waa nu mu tuddati sax waa takku Séné takku de. Euh, bu Ousmane takku wàllu Sénégal takku wàllu Sénégal. Mm-hmm. ñoom ñoo dugal recours justement pour ñu invalider mm-hmm. euh, euh, la candidature de Ousmane Sonko ni liste normal parce que jàpp nañ question d'éligibilité mhm. toujours d'actualité euh, ñu ko ak Diaz euh, parce que tout simplement moom itam dafa am lante ak euh, l'affaire mhm. la condamnation a été définitive maintenant le dernier mot revient au conseil constitutionnel. Mhm. le conseil constitutionnel mom moy xam mom moy xol euh, ci li nga xamantene ni euh, yoon may na ko mhm. mu wax ba xam euh, ñii war nañu mën bok ci course bi. Mhm. wala waruñu ci mën bok bokk nak venant de ñi nga xamantene ni ñom ñoo déposé recours li len yoon may la. et puis ci lo xamantene ni ay bataille politique la du fi lu bees dañ koy faxal di gis. ñu def lu mel nonu nak conseil constitutionnel mom moy décider pour wax ba xam. Barthélémy Dias dina bokk ci course bi wala du ci bokk Ousmane Sonko dina bokk ci course bi mm. wala du bokk ci course bi mais ak lum ci mën di doon rek Euh, euh, dama japp ni ci ay combat politique la nek mm-hmm. li tax ñu wax ni euh, Ousmane Sonko ñu doot Ouswaker Ousmane Sonko ci recours bi nga mm-hmm. xamantene ni mom mo am à l'endroit de Barthélémy Diaz mm-hmm. gis nañu relation yi nga xamantene ni mom mo doxone sen ay digënté gis nañu len ci coalition Yewwi Askan Wi ñaari doomu nday yo xamantene ni dañoo dem ba ci biir kenn ki ku ci nek daal di jël sa yoonu bop on se souvient que Barthélémy Diaz toog na wax ni man Aksama ak sama doomu nday def nañu loo xamantene ni nii tey euh, bu ci yoon jotoon xëy na euh, kii la ñu jëmee euh, cour d'assises la ñu jëm <laughs> cour d'assises la ñu jëm ce qui veut dire que def nañu loo xamante pour des questions politiques euh, pour euh, des euh, questions d'intérêt crypto personnel mm-hmm. je pense que dem nañu ba seen euh, ku ci nekk jël sa yoonu bopp euh, dem euh, donc ci walu politique également mm-hmm. su loolu amee dinañu am jortu ni que ki nga maintenu ni moom ñoom ñoo fété Pastef mm-hmm. ñoo ko def donte ñoom génn nañu njortu la nag toujours est-il que amaguñu preuve ni que ñoom ñoo ko def ou mm-hmm. pas mais njortu la parce que tout simplement amna na ay ñagas-ñagas yu am seen diggante ba mu yegg ci benn niveau bi gis nañu keroog ci sortie bi nga xamante ni def nañ ko def face à la la ñoom ñuy wax ni ñoom seen bëgg-bëgg bëgguñu euh, ñu euh, wàcc benn candidat El Malick Ndiaye laa dégg muy wax loolu. Mm-hmm. bëgguñu ñu ñu conseil constitutionnel bloqué benn candidat dañu bëgg ñu bàyyi leen ñoom ñëpp ñu jàll ñu xool ñoom nan lañ leen mënee. wóolu nañ seen bopp wóolu seen bopp suñu sukkandikoo ci kàddu El Malick. parce que mm-hmm. nee na dañ leen bëgg a boole ba ñu mat fukk. ñu duma leen ci benn ngoon loolu la wax léegi nag euh, loolu itam peuple bi moom mooy décider ndax loolu mooy am wala du am le dernier mot revient au peuple comme mm-hmm. on dit mm-hmm. mais euh, yenn combat politique yi wala mm-hmm. yenn euh, af nu mu tudd sax confrontation politique yi yu mel ni moom du du du mën a ñàkk ci langue politique surtout ci ñoo xamante ne ni ay adversaire lañ Euh, euh, merci beaucoup Anna ah, maa ngi dellusiwaat ci yow léegi léegi Aïssatou euh, candidature Barthélémy Dias yaakaar nga dina mën a dem wala du dem waa mami euh, ci sama gis-gis ci loolu dañuy wax rekk jëm ci li nga xam ne gis nañu ko démb. Mhm. Euh, ñu mm ni conseil constitutionnel moo ko def. Mm -hmm. yenn ci këru taskatu xibaar yi. Uh, weddi ko. Mm -hmm. uh, soleil sax ñoo njëkk ndax euh, le soleil. waaw le soleil ah, tamit ñoom weddi nañu ko nii ah, loolee nga xam ni wax nañu ko. Mhm. Euh, loolu amul man mami sama xalaat mooy. Mhm. fan la xibaar bi jóge Euh, fan lañ ko jëlee ndax est-ce que aussi tamit nekkul ñoo xam ne dañu nekk ci ginnaaw euh, ñoom ñoo joxe xibaar yi wala ñoom li aana di wax léegi léegi que El Malick Ndiaye moo ko wax que ñoom bu ñu sañu ñëpp dañuy bokk pour ñu mhm. mën a bëreek ñoom mhm. ñu xool ndax ñoo leen mën wala mënuñu leen mhm. mais dama jàpp ni peut-être ñoom xaw nañu ragalee benn côté ndax bu ñu bu ñu ragalul woon kon yenn information yi duñ ko fa mën a jëlee ba yóbbu ko ci yenn groupe de presse yi nag teg ko fa ndax Walfadjri bu bindee loolu ba pare wax ko ak groupe de presse bi mu doon mhm. mu dellusiwaat aussi weddi ni loolu amul que conseil constitutionnel waxul loolu parce que mhm. maa ngi koy tiim ak soleil la mu wax mhm. aussi ci loolu ñu wax ni itam kenn koo xam ni itam mandataire la ci list rek euh, ànd Euh, mi ngi noonu euh, Modou Dieye mhm. euh, suñu réew moom itam ñu ni wax na ni kon Barthélemy Diaz lii di candidature bi conseil constitutionnel da koo rejeté mu mel ni am na ay mbuxum yu nekk ci biir bu ñu am na manipulation bu nekk ci suuf boo xam ni moo nekk ci suuf ñoom ñuy mhm. manipuler xamuñu ndax waa Pastef ñoo nekk ci ginnaaw waaw wala déet mais xam nañu stratégie politique moo am mhm. parce que boo xoolee rek ni ñu doxalee boobook léegi ñuy waajal élection yi ba ñu ne ëpp 17 novembre la def élection yi ba mhm. légui mën nañu gis ni am nay stratégie politique yu bari yo xamni jamono ji ñong koy woyal té lépp rek moy mhm. euh, pour am majorité ci assemblée nationale mhm. eggaguñu fa ndax dina am waaw wala mais japp nañ ni euh, candidature invalidation candidature Barthélémy Diaz bi euh, ñom mën nañ ci bokk ndax mën nañu japp ni ñom buñ ko écarté lu leen gënal la motax ñu défé politique bi man loolu la xalaté ndax Barthélémy Diaz xam ngeen ci ayu bés bi ñu génn mi ngi wax ni que Babacar Mbengue moom lay def tête de liste. Mhm. moom mu nekk maire bu Hann bel te ñu bare dañoo désister ci loolu ndax ñu bari buddee nañu. Mhm. ni ànduñu ci li nga xam ni moom la moom la bëgg def moom Barthélémy Dias. mu mhm. mel ni daal euh, li ma mën a wax ana déggal euh, mami ci loolu. Euh, mooy ni jàpp naa ni rek stratégie politique la boo xam ni pouvoir bi fi nekk wala parti leader bu Pastef ñoom ñu ngi koy nal ci suuf ngir mën a écarter ñu bare ci seen yoon. manipulation politique stratégie politique mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko tuddee noonu mhm. voilà mi nga baal mhm. Abdou Nguer di intervenir il faut que ñu ñu ñu taxaw ci surtout la presse la la la presse plutôt mhm. Mhm. Euh, dañu wara attirer sen attention par rapport ak yenn ci ay xeetu manipulation Lolu moy tax may faral di wax ni yenn ci ay message dañu koy véhiculer euh, nit ñi jot ci euh, dem ba japp ni lolu mom mo am mom moy deug alors que bo duggé ba ci bir bo setlo ba ci bir en réalité du lolu mo ndax mhm. tout le temps may faral di wax ni nit ñi dañuy ñëw ci plateau télévisé yi di leeral mais la presse également nañu def très attention par mhm. rapport à cette manipulation mhm. euh, parce que euh, mën na yàq lu bëri ci suñu liggéey mën na décrédibiliser euh, maison de presse mën na mën na mën na mën également sa sa réputation voilà justement en tant que journaliste donc c'est des choses yoo xamante ne encore une fois comme ni ñu koy jàngalee à la formation lépp loo xamante ne information la bala nga koy véhiculer mhm. war nga ko mën euh, justement mhm. vérifier ko ba am une source sûre nga doog ko mën a maintenant venant euh, de la part de nos confrères de Walfadjiri euh man xawma lolu nan la ko mën a mais euh, toujours est-il que ñu rafet ñot ni ni ni ni mhm. njuumte télé c'est vrai que télé bu mag la c'est vrai que également ci aw paysage médiatique bi don nañu ño xamante ni nii euh, dootuñu leen voilà mm-hmm. justement def nañu sen ay preuves mm-hmm. mais nañu bayyi xel bu baax baax message yi parce que euh, euh, information yi parce que manipulation bi mm-hmm. je vois que période bi ñu tollu dafa bëri torop surtout ci période électorale bi donc surtout tuumaal lu toll ni conseil constitutionnel nga tuumaal voilà donc c'est un peu compliqué voilà c'est un peu compliqué bayyi xel dañ koy dañ koy dañ koy tere rawatina këru taskatu xibaar yi ak ñun ñëpp suñu responsabilité ñu bàyyi ci xel bu baax ba tey si wàllu Cour la ñuy euh, desandi Abdou Nguer euh, ginaaw bi nga xamanteni ne nii ligue euh, ànd liggéey ñoom recours contre Barthélémy Diaz waye dafa melni ni recours bi nga xamanteni wa waa wal Senegal, Sénégal bi contre Ousmane Sonko mo jitu premier ministre Ousmane Sonko mom dem na conseil constitutionnel mom tamit dem déposer ay ay ay ay mën nañu point yi nga xamanteni mo koy mo koy défendre <laughs> pour se pour se défendre mom dem na vers ñom pour défendre bopam awal c'est c' kay ñom même Bart dembu ay avocat eh, dajalo nañ ñom tamit ku ne dem ngay défendre def dem défendre sa bop mhm. sank sa biir wax da nga da nga ne eh, eh, li ñuy àttee limi loolu lañuy ñuy wé Ousmane ah, Sonko donc bu Ousmane demul Barth du dem bu Barth dem Ousmane ñom ñaar sax parce que bokul ki dafa langamu ci benn loi amnesty bo xamné won na bëggul soxlawul demandé wul tay ci la langamu nonu ndax bu du loi amnesty mom du bok na lèr Mm-hmm. conseil constitutionnel bu ne Ousmane Sonko liñ lay topé ci Mame Mbaye amne nekkul ci loi amnistie bi mo yàqu na. Mm-hmm. c'est fini. Mm-hmm. fi ak juromi at. ci 5 ans. Ousmane Bart limi Dias tamit ci loi électorale bi lañ mëna a ko écarté ko. bien sûr bien sûr. Ah, waaw lol la. Kase casier judiciaire la waroon a ñàkk am ñu rejeté ko. am casier judiciaire. Ousmane am casier judiciaire. li de limo ma fi fekkee tax xam ko. mooy code électoral ko ci la. ci la yenn détails yi commencé. L29 mhm. L30 ñaari L yooyu daal moo indi woon problème mu ak Karim. ak Karim d'accord euh, euh, ñaari ñaari recours yëpp mi ngi ci kanamu ah. les sept. nañ yoon rek te donc voilà dañuy déglu dañuy déglu yoon euh, mu nga xamante ne moom mooy moo yor kàddu gu mujj gi bu ko defee nañ xam ndax ñaar ñoom ñaar kenn dina ci dina ci mën a bokk mm. donc dañuy attaquer.